ay doomam donn loolu def ko tey boo seetee murit tarixa yi lépp nga fay ethnie yëpp nga fay fekk boo demee ci maam Seydi Hadji Malick noonu la def takk ci kër yeneen jël ay doomam maye feneen loolu lépp moo indi tey suñu jaxasoo ba tey ñu mën a nekk Sénégal waaye waaye waaye waay waay ku bëgg réew mi da ngay ngem bu dem élection ku bëgg a bokk élection da ngay bëgg a da war a wàccoo ak chartu réew mi mais ku defee ni ci ñëw taal fitna indi say influenceur ce fukki nit nekk bitim réew dinaan noo dëkk baa ngi tàkk li ci ëpp ay manipulation la li ci ëpp ay manipulation firnde bi mooy man maa ngi nii toog du maa ngi nii toog lan ngeen déggul ci man suba ba ngoon jot dañuy wax lu dul dëgg suba ba ngoon jot dañuy wax lu dul suba ba ngoon jot dañuy manipuler suba ba ngoon jot defuñu lu dul yéem a yee fitna na réew mi yëpp xam ni société civile boobu naan ay noo dañ koy discuter kenn du discuter ñu di wax loolu noonu ay ennemi Sénégal lañ na ñëpp xam ni que influenceurs yii ñuy wax ci télé yi te ñi ci dëkk fii nii ku ngeen ci gis xam leen ni que ennemi Sénégal la képp kuy woote pour ñu taal réew mi jàpp leen ni que ennemi Sénégal la yéen ndaw réew mi laay waxal le conseil national jóg organisation de jeunes yi organisation de familles, yi ñu taxaw quartier par quartier ñii bëgg a taal réew mi ay bandi lañ ñii bëgg taal réew mi ay agresseur lañ nguur gi nag awma sikk sàkk ci ni ka taxaw na justice bi awma sikk sàkk ci ni ka taxaw na parce que boobu ba léegi kenn du juge kenn du àtte kenn du kii nga ubbi parax ndollu taal ba pare daw di nëbbatu ñoom ñëpp dinañ leen génne benn benn benn benn benn benn ku ci yaakaar ni rëcc nga ndax nga sa bopp ku ci yaakaar ni nga nekk à l'étranger toog tiim sa live taal sa live naan sa ndox ba kay sedd wéy taal nañ kër kii taal nañ kër kii dem leen am na kër yooyu xaw xam ni kenn du ko taal de ku fa dem sa bakkan nga fay bàyyi yàlla nag moo ñu nattoo mooy nit ñi fii nitu jàmm lañ mais na ku nekk jël matukaayam quartier bu mu nekk na organisé wu

ay kuréel ñi ngi fi muy tribunal muy gendarmerie muy police dina def liggéeyam na ndaw yi Sénégal xam ni que am na ñu rax kuy manifester ti bee boo nga xam ci li ngay def ca gestion wu manifestation bi mënatul nekk comme avant ñuy yëg ni que am na ñu yor ngànnaay ñu fi dugg du man maa leen filmer du yéen yéen a leen filmer suñu yeneen moroomu sénégalais ñoo leen filmer donc jumtukaay yi ak matukaay yi day ute

njiitu Pastef man ak moom dañu dem tribunal bi ma demee tribunal ñu daan ko biñ ko daanee ma def réquisition ci ay bien biñ defee réquisition bi ci laa gis ni que ndekete wax dëgg yàlla am na ñu jóg pour sànq réew mi ca koom-koom gu bari lañ ci dugal njiitu Pastef nee na këram gi nekk foofu ci te kër góor def na ci hypothèque gu 9 milliards 100 millions nee na këram googu nekk 256 mètres carrés def na ci hypothèque wu jot na ci 9 milliards cent million kayit baa ngi fii man du ma diffamer kenn balaa ngeen a jóge fii ku am airdrop ma airdrop la man lu may wax dama ciy am firnde parce que ruus naa di wax après suba samay nawle samay doom ni ma yaa fi wax lii balaa ngeen a jóg ku fi am airdrop nañ la ko airdrop mais na ngeen jàpp ni que nekkul ci awoon ci ak njub xaalis bi ñu doon wax ñi ñee ko dajale yëpp du dëkk ca xel tey na ci yu bari ku gis kër ga nekk cité kër góor gi xam nga ni jarul 9 milliards 100 millions donc ku nekk ci loolu dajale woo xaalisu sénégalais yi pour def leneen jun junj nag doy na boroom xel bépp taxawaay bu ci war incha allahu rabbi ñun dinañ ko jël waaye bu leen kenn nax bu leen kenn nax. ba taal fi fitna tey mënoo koo fay nga daw bu leen kenn nax ba tey mu taal fi fitna après topp di seeti président de la république naan ko wuy nañu waxtaan kenn du waxtaan benn waxtaan a fi am mooy dialogue national bi ku bëgg waxtaan foofu ngay dem waxtaan bu fekkee nag ñun sénégalais yi nangu nañ nii ñuy dunde ñaari fan yii ñu continuer koy dunde mooy nekkatuñu la ñu nekkoon bu fekkee ñun sénégalais yi ñi bëgg a liggéey ñemeetuñu xëy dem liggéey ci yenn bax gox yi parce que tout simplement benn nit ci ak njubadeem ci ak defi boppam bu fekkee ni que ñun sénégalais nangootuñu dem liggéeyi na na mënatuñoo yóbbu suñ doom yu jàng mënatuñoo dem faju parce que tout simplement dafa am ñu nekk bitim réew di xamb ak a dugal fii mooy nañ leen xoolaat nekkatuñ nañ nekkoon ku ragal toogal sa kër waaye ku bëgg réew mi ku bëgg ndonoli suñuy doom jot ci ku gëm yàlla ci ku ànd ak dëgg na nga jóg taxaw ñu organiser quartier yi kuñ dàqati ba nga dugg ci biir quartier yi ne la waa quartier ba jàpp jébbal la police ku ci yor ngànnaay bu ngeen ko mënul jàpp gendarmerie am na numéro vert police am na numéro vert force spéciale yi dinañ dem dem lijjanti ko mais loolu lépp nañ ci taxaw ngir suba dund ba ñu xamoon ñu dund dellu ci ngir suba terre bi mën a dawaat ngir suba investissement yu gouvernement bi yàlla rek a yor nguur ku bëgg nguur ci ay élection ngay dem ku bëgg nguur ci ay élection ngay dem keneen ku leen wax ni ko nguur mën nañ ci jote neneen kooku ennemi Sénégal la ennemi Sénégal ñun ñëpp am responsabilité xeex ak moom ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum dafa mel ni affaire bi ñëw na lii lii Ces manifestation est là. Qui est du manifestant? Donc, pour que nous que la police et la gendarmerie sont réunis, nous sommes réunis. Nous ñooy yor arme à bu buñ duggee ci biir nit ñi tiire bu ci nit deewee ñu ni balu fital moo ko rey wala paaka moo ko jam wala jaasi ñu jiiñ ko policiers yi ca ñoom la parce que bëgguñu lu dul bëgguñu lu dul ñu naan am na vingt morts quarante morts Sénégal instabilité fii lañ bëgg a yóbbu réew ñii nag police ak gendarmerie dina leen lijjanti mais pour ñu lijjanti mooy yéen Sénégal

ñi fa nek bu guddi jotee la genn dem régler i def bi ñew bi police ñewé dañoo gis ñeko ñoo jiite won toj wu ñi doon am dañuy ñew déclenché après boy ñew daw ñuy tirer ci bir nit ñi na Grand Médine def non wa def Massar def parce que fofu mo ëpp ci liñ duggal nous. ci nit ñi parce que les nañ ni ko fofu moy banlieue jàpp nañ ni que foofu nit mën na fa dugg ci seen teraanga ak seen féex ak am jàmm boo ñëwee ñu xajal la nga naan naanandoog nit ñi ataaya bu guddi jotee ngeen woowante dem def liggéey bu bon bi donc na quartier yëpp taxaw na ASC yëpp taxaw na mouvement de jeunes yëpp taxaw ñu jaamaarloo ak ñoom ku police dàq